eh eh ma ne nga wàcc wuy ma lan ngay def ci kaw garab gi naaj bu tàng bi bu seddee rek nga ne ñolong ni gol da ngaa war a yéeg kilifa dina yéeg ci kaw garab kii kii la laa seet kii nutu mango bu ñol laa wax seet ma yi dama xaal tuuti ba xam dina ñol waaw xam nga xaal rek parce que ni ma gisee nii da nga di xaar nii pour dama doon xaar pour mu ñol foofu ma nelaw tuuti ma fol ba de daanu ci suuf ba xam waxuma kérok dafa am luñ doon waxtaane woon ak yow. fala mbiru maire boobu aji jóg. wa da ka gis wa gisuma ko danga ma cey leeralul dara boobu ba tey. loolu dafa ñëw léegi sama xé jeexul dé jeexul dé koku lan nga séq ak mom ah ba ma wax deug ñewal ma deug dëgg. yow lay déglu. mel mel bi maa bu yag la. mu ni waaw bo fi mam ba tey dafa ma mom mom dafa may wo këram. yaa ngi dégg moom lu ma bëgg ma defal ma ko après moom lu mu bëgg ma defal ko loolu la léegi moom moom leneen la bëgg yaa ngi dégg léegi boo ba tey loolu loolu moom chaque jour chaque jour ay ay trois ay deux deux léegi léegi léegi ay chaque benn laa koy jox chaque jour ba après dem na léegi mu koy tëb sax maa may jabal ak léegi loo koy jox ah loo koy jox ah da ngaa tëx ration ration daanul lii lu mu. moom bi dama koy kii quoi maam. kii lan nay leer. fëgg fëgg. fëgg nii buntu baa say loxo du fa des. fëgg fëgg. loo koy fëgg sa oom. maam bi sans anaconda bi laa ko jox. Ah, loola loola pour leer. wàcc de daanoo ci gën a gaaw loola nee naa nee naa nee naa fa ci suuf nag. yow xam nga ne yor soxna di njaaloo baaxul. ñu ne déeta kooku moo la mag di sa moroomu yaay. waaw nag kooku loolu yàgg na de nekku tey xam nga nan lañ koy woowee fi senegal xaw ma zigolo lañ koy wax xaw ma di wër seen moromu yaay di jàng tëbb ñu leen di may bii eh loolu bokkut ak loolu ankay xawar tax xam wala loolu dama moom yàgg na gone gu doy ni yow ngay jàng tëbb ci mag ñi loolu foo ko teg yow kay li tax parfois mooy loolu yow comprendre la yu ma moom moom loolu yàgg na galaawul loolu moom yàgg yàgg naa def foofu man waaye xam nga lu ma lay laaj est que mën nga ko bàyyi wala mënoo ko bàyyi loolu laay laaj c'est-à-dire baaru baaru baaru nga yóbbu police maa war a ya waxat affaire leer mën nga koo bàyyi wala mënoo koo bàyyi na dem ba dikk lijjanti wu ma loolu maa la est-ce que doo dem waxaa dem kan yow kooku du maag moom damay moromam man rek wala danga maa fàtte kooku duma moromam man duma akki ma na ñëw bu la soxlaa na ñëw te bu waxee ma tontu ko te dootu ko dolli yow laa wax ndax mën nga ko wala mënoo ko bàyyi lii laaj waaw waaw dinaa dinaa dinaa fa dem expliqué waxtaan ceeg moom expliqué ko dinaa fa dem. tey waxuma expliqué bàyyi laa wax waaw waaw moom bàyyi naa ko nii sax. waatal ah wala asim bàyyi naa ko. waataatal. wal wala asim boo fenee. yal naa dee tab juróom ñaari safal. ak kon wasalaam. ba bàyyi naa ko waaye man dinaa fa dem léegi xamal ne ko suñu diggante suñu diggante jéem affaire la ñu def. dama laa doy baaxul sëkk sëkk sëkk. xool ma. gis naa bu baax. xool ma doyul ma la voilà. nice. woote yàlla gën bu nit. xaw ma damash xaw ma eh, lan la yow. Eh, yow ah, lépp la. mënu lu tax mënu yow dox ba mel yow da xanaa nga doon bronzé wu xam nga de. bu yaboo bu yaboo lu ma mënti def daal bu yaboo. mënoo bàyyi taxawaalu. ak yow tamit mënoo bàyyi taxawaalu. mënu ma dem sangu. song song kii dafa salte. Ah, yow yaa ngi xëy na. yéen a salte yéen a ma gën a xeeñ yi ngeen doon dil bi yëpp lay kalaate. kan mooy fenkat yow. yéen ñëpp boo ma ko waxatee ma ñuus la. doo def tuus eh, dara doo ma ko def. dara doo ma ko def daal ma. ma teg sama ma teg sama ceinture ñuus ko. yow da nga am ceinture sama ñoo gi. yow lan la fenal ba nga naan ay fen. dëgg gi ci fen gi ci kër gi moom laa bëgg mu leer tey. yan fen. ah yéen nekk fii di wax lu leen leen saf waaye dégg yëpp laay kalaate. Ah, <laughs> ah waaw dégg naa leen fii dégg naa leen. xool xool ki wax dof adal ah, almas wuy ma fii waaw bu yeboo du naaj du naaj du naaj xool waxal dëgg te yàlla tax. keroog yónnee na fii nga naan ko dara jotuma ëmb ma dama la doon nax dama doon wàcc wàcculu hmm. loolu yëpp mi ngi sama biir nopp bi léegi yow comme leer na nag du ngeen ko tas benn yoon ku ne am jàmm boobu naka dañ doon yéen déglu ma fi lépp laa dégg waaw ma wax la loolu nga dégg ak li am du benn ama xam nga wérut waaw bëggoon a kii yaa ma gën a xam waaw mais ëmb bi mooy loolu baal mu sedd ay yow dara amu ci koon sama xarit boobu ñi maa. waaw waxoon nañ ci pour ma may la ko de. waaw ñu maa waaw loolu moom waxoon nañ ko. waaw waaw kay jëloo ko nga nga noppi waaw waaye nag fenal ma xool waaye nag wax leen dëgg te yàlla tax. Allemagne la la jëme de. Allemagne ñu maa borom Allemagne. waaw loolu yëpp garaaw bëgg naa waaw. ah ca sama nijaay moo ko gënal. sa nijaay nañu may jàmm dara ndoxut. ah. puusul paasul. loolu ngay wax. mooy doo ma ci may. Ah. man danaa yor Sadio Mané di wëri lu ma xamut. waaye da ngeen koy wax ni ëmb bi dara amu ci ngeen tas sey bi. parce que sonn na lu tax ñu koy tas parce que ëmb bi du dëgg lenn naa la ko xamal waaw buñu tasee ba ma dellu ci moom ah nii da laay def damay mbi fa foore yooyu yëpp garaawul waaw dëgg yëpp garaawul amul problème jàll yo dugg fii génn fii la moo la bàyyi ci kii laa ilaha illallah woo oh, aloe vera karité ah waaw ah, ay sama kii kii la la moo la lu yëngu lu ne la ko yëngal ko ëpp doole. aloe vera lu yëngu ko yëngal la ko moo ko doole. waaye leneen lu ko doole mu ngi ñëw. ma ma fii ma ne fi lu fi ñëw ah! man moom xa xamoo man la kan. ah man la ñànku njaay fala maa lu góodam booy. man aw ma pole lemu encaissé. amoo ko lu ñëw ma seere. lu ñëw nga seere. doo defati. di nga seere loolu man. yow bandi ko sax. mënul mënul mënul mënul. yow di nga xam ne woyoo. pa a sangu sangu après ma dama sangu après ma ñëw ma ma am lu ma wax. maaleykum salaam. woyoo. ñëw nañ. yow non wax kaay wax wax seey ne wax. ma eh. Eh, eh, ma yow. Ah, danaa xam la kii am la doo ama bu ko am lu ma ko ka kaay ma wax kaay. dama noo. Ah, bu jooy bu jooy la. nee ma ko seetaanal garaawul bul jooy bul jooy. seetaanal seetaanal lan moo la métti waxal lu la métti gars yi xam ko quoi bul jooy. kon ñàngu. yow lan nga def kii. moo la laa tooy ah. ñàngu déglu rek. kii fu bul jooy bul jooy. eh lan la yow. garaawul bés a ci xool nga wax garaawul wax rek. waaw lan la lan la léegi jooy. Eh, ëmb kay eh déglu ma fii yow soxna si noo tudd jooto eh, eh, kii da nga koo xam bu baax sama far la woon pire <laughs> loolu kañ la maa ci xam dara man nii ñoom moo la ëmbal moom moo ma ëmbal benn far laa amoon muy moom ah xool ma fii yow kii yow yaa ko ëmbal kii ah, ëmbul ma kii maa woon dañoo gën bu yàgg bàyyi tam bu yàgg loolu yàgg la <laughs> ay fen yow dootul di def dara yow dootul ay fen. dootul ay fen waaw. bu mu ñaar ayoo kër gi neex na. rek leen laa la wax non non dañ koy déglu de dañ koy déglu ndax moom moom moo fekk kii ci biir këram di ko def ci kanamu jabaram waaw yow. li jëntiwuma loolu da ngeen a réew. waaye dafa lew yéen a ko tey. jël seen tànk yi diw ci laalu def ko ni bargal maam fu góor nekk ngeen wëri ko juddu rek jël góor rek def ko seen xol man li jëntiwuma lu ne dina leen dal yow eh déglu ma fii li jëntiwuma kii fan nga ko ëmbale. ak loolu kañ la xew. la boo boobi tey laa lay def di netetu. xam xamoo kii soo xale. laay laay bëgg jigéen bay bëgg a eh, tontu ba yow. kii foo ko ëmbale. kii kii fekke amoon naa kii booy boobi. yow yow ko defati. xaaral xaaral yow loolu yow maa yow yàgg xëy na yow ma ñaar yow si ay ay sept fois rek euh, euh, la. sept fois kon da nga koy compter loolu naa ma ay sept fois eh. <laughs> eh, fen sept fois kay la ñuy gis jabar ju ñuus jëkkëram ba toog ci kawam di brek. kii loolu yàgg na. te dinaa la ñuusaale. Eh, tey jii di neexee eh waaw dégg nga bu ma dépassé waxal waxal bu loo am jëloon yow war ngaa wax yow. am nga loo a wax am nga loo war a wax. déedéet nii bu nekk waxal du <laughs> seen kër. kër gan non ku ñëw na fa ñëw na fa ñëw na fa ay guddi fii ah. am boobu moo ko moo ko moo ko na ñàkk am pestance sax tabax bii rek tabax bii rek sa lu ma ko fi dóor ka naa xam tool tabax bii rek tabax ban fii tabaxu tabaxu ñoom maa ngi yow ñoo ci ànd te du tabax bi kese waxal ma tabax ba seen kër ak ah, ñoom buuba buuba kan ñoom buuba waaw tabax bi ak fii ak fa des na ñett ak ñoom pam naar ka ñoom pam naar des na ñaar hmm? des na ñaar moom booy bi kiiwu sax tabaxu la appoon lu ma koy dugal foofu tabax waaw bay yàgg na booy booy booy nga denc sa biir ba heure bii nga na nga jig naa da ngay biir biir lu fii booy da ngay biir waaw déglu ma fii ma wax la lim noonu ba toog du daanu nga boo paree man nga may ma sama baat ndax yow vrai imbécile nga aw kër gaa ngay toj wayo kër ga yangu na yow doo rus sax yow amoo gàcce maa ngi lay xaar wala leen na nag ordonnance ak hôpital yi lépp di nga ci ko jël en charge li nga ñàkk fayda yëpp kat junuma sa kanam gi ak écofam yi sa bakkan bi mel ni mbi mbi bu policier nga nga nga tey waaye jóge fii saf la woon sax nga nga nga yow di fer fi muy lii muy lii muy lii mu mën a fan rek muy wax hmm? loolu ah, waaw àdduna bi lu yëngu lu ne la ko yëngal ko ëpp doole wayoo ka gi neex na <laughs> man ma nag doomu laam la boo nee lii ay pexam la moo moo moo lekk lii yëpp booy moo nee ko jëri sax la bana femme man man ku ma ñaam baat dama lay may baat de man man aw problème man aw problème jigéen de man xanaa xanaa man ku ma ñaam baat ma may la baat man man koo ñaamul kay moom moom laa xam waaye soo xasee ba xam li ma yor foo fu ma demoon ba binkilin tànk di ma toppi fu fu mu leer fu nga yaakaar ne soo ko ak dëgg nga sa bopp nga ñëw la ñaan ma fi baaxoon dama la may wala sama la xanaa may baax ba may di jooy nag waaye naa la ko may